parce que dañ ko aay woon France dafa dugg clandestinement déedéet Charles de Gaulle boo fa wàccee tubaab bi interdiroon la réew mi booy ñëw dañuy gis loolu si ordinateur yi dañ leen di sëñ bi delluwaatal fi nga jóge mais alhamdulilahi rabbil alamin sama heure dem ba mu jotee damaa jóge Sénégal ñëw ñëwaat France fi def fi un mois senegal Sénégal def Sénégal deux mois ñëwaat fii bu ma neexee suba suba suba suba ma dagg billet dellu Sénégal reyu ma fa nit police waruma ndax dama jaay dorog agressé wuma fa nit triandé wuma fa nit est-ce que yaa yow ya fa amone plainte kumba am day kumba kumbaamu ndey dafa xew ci réew mi gaañ kii mooy Kalifone Sall nak mom mo fi don saga Macky Sall ak Marème fay Sall ñu woko ko jox ko xaliss mu wëlbatiku di saga Ousmane Sonko promu mu sell mi yamu ci jël yaay Ousmane Sonko taf ko diko saga lu kenn musul def ci réew mi benn doomu rew musuko def moom moo ko def ndax boobu ma nga bitim réew léegi fi mu toll dafa daw mënatul ñëw Sénégal parce que xam na ne Sonko moo fi nekk ak Jomaay te lim doon def lépp gars yi jot nañ ci déglu leen audio yi muy li may wax di ma ko digal pour may dal ci Ousmane Sonko ak Jomaay déglu leen baax Khalifa. non Bada man waxoon naa ko gars bu yàgg man newoon naa lu Macky Sall mënul def Sénégal du Sonko ak Jomaay ñoo ko mën a def xam nga bu dee jàng Macky leen gën jàng bu dee alal Macky leen ëpp yàlla xam na ni fii ak 10 ans. mënuñu wàññi dara si saako ceeb buñ ci wàññee cent franc lañ ci wàññi waxuma la kilo bi de. gars yi yi dafa bëri mënumaa teg lépp mais dinaa live léegi léegi teg lépp war na leen kii du nit ku baax Adama moom du ma wax ak moom du ma sori say mbir parce que yow ñëpp xam na na sa jabaram ko jàpp flagrant délit muy mu film porno yow ñu gis say vidéo fuité ak say photo nga jàkkaarlook sa moroomu góor tiim ko ah di kattanteeg moom. lolu addu yep tek den sen bot kon yow sa crédit amatoo credibility ci réew mi deuxièmement sa jabar ji lan moo tax ëmbut boobu ba léegi da nga yakar lolu xawmako xamna koy parce que day daanu day say jabaru boss de capo day say man malin len wax li man mara di peuple li mo waral xale bi boobu ba léegi mënta ëmb parce que dof la matut gisoo len ko day re rek fu ne ko capo ne ko euh, commentaire nangam euh, zema partage sax mu retane day re rek dof la yorut mës ngeen koo gis mu wax waxi nit du wax man kay ci preuve laay dox parce que damay déggante capot xam sër yi nga xam te nii ñoom ñoo koy ñaanal capot fa lay fajee jabar ji parce que ñaar ñu wérut nañ wéruñu gisoo capot day yur rek du nit du ma wax ak moom awma lu may wax ak yow sa koy nga simmi devant tout tous les sénégalais 18 de sénégalais nga simmeeku ko futteeku yàgg na ñàkk jom ñëpp yow dara safu la dara safu la li la gën a naqari sa àddina mooy doo ñëw Sénégal bi ma xamee ne nag sa yaay yéen bokk benn bàyyi Lapar ya, sehingga, wassalam.